comme ñun si société bi ñu juddoo ou si société bu ñu fekka because dañ dee wax ne ne anytime jigéen we are always behind dañ dee wax ne ne góor lu nekk góor moo dee war a jiitu soo mbaa ñuy wax ne ne comme lu góor mun jigéen mënu koo def man dama wax ne ne that is not true because why ñun jigéen yi dangaa gis ne ne comme people comme somebody like me am an engineer su ma génnee fii di dem liggéey people will be looking at me why because I'm a female in all crowd of men i am the only female there Look at nit you ñu maaxool because why? Then they want ne ne lu góor mu